asalaamualeykum waa Liberté 4 awuzu bi kalimatillahi taamaati min kulli haam sharri maa xalaqa gannaaw bu ñu jullee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant si ñaari waajur yi ku nekk xam na ko muy El Hadj Madické Niang ak Adja Khoudia Lo Gueye di sama sëriñ maa ngi nuyu chef de quartier bi Père Samba Fall di ko jox wàccuwaayam bu baax fii si Liberté maa ngi nuyu imam Diallo di imaamu fii si moo pare ci loolu maa ngi nuyu sama ministre bu ñaawul bii man léegi waxatuma ministre futur maire laay wax maa ngi nuyu futur maire waaw di nuyu madame Sanko nuyu fi ñëw di leen ziar bu baax xam nga tey la moom ci gën a neex fii laa yaroo fii laa màggee fii laa fubalee fii laa jëlee ndam fii nan ma waa Liberté 4 donc madame la ministre dama lay dénkaat waa Liberté 4 ay nit yu jom ñoo fi dëkk ay nit yu ñoo fi dëkk nit ñu gëm san bopp ndaw yi ngay gis ni ñëpp maa ngi bu baax a baax xam ma tama sawar àndal ak madame la ministre dëgg neexul gis naa fi ne xool naa fi ku ne xam naa ku ne mais xam naa ne moo jara àndal parce que éducation bu ñu bëgg sante bu ñu bëgg Sicap de référence bu ñu bëgg mu ñëwaat fii si Sicap moom moo ko mën a indi si bàkki Cheikh Ahmadou Bamba man duma àndantu man duma àndantu mukk nit ku baax ngi ni ku gëm liggéey ni ku conviction moo nekk nii bëgg naa ngeen jàppale ko gannaaw d'abord ba leen jàppale Diouf Sarr mu jël mbiri Dakar fa lay tàmbalee ngeen jàppale dem votel ko moom jox mu jël mbiri Sicap maa ngi nuyu bu baax di leen siyaar yi wax jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba maa ngi nuyu di nuyu madame le ministre Zahra Iyane Thiam notre prochain maire de Sicap Liberté di nuyu ale di rafetlu ñëwam ak àndandoom ak madame le ministre mais également maa ngi nuyu parti yi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal liggéey bi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar boobu ba tey di ko doxal maa ngi nuyu ñëpp damay bañ a lim ndax su ma limee mën naa bañ a matal di nuyu également suñu camarade yu nekk Liberté di jiital madame Sonko rafetlu nañ lii nga def tey Cheikh Ndiaye ñi ngi lay nuyu ak suñu sœur Nafi Sego Touré ñi ngi leen di nuyu bu baax ñoom Fatou ñoom ñépp nabu maa ngi leen di nuyu kàddu yi nag tey damay wax ne rek madame le ministre waa Liberté 4 aalu nañu comme démb ñun ni ñu aaloo ndax kat Cheikh Ndiaye nee na Liberté 4 di nga gagné mais score bi ñoom kenn du leen ci ëppale te ñun dañ la promettre 100 pour cent ba pare Liberté 6 waaye nag lépp dafay am lu muy wane mooy ñun ñi ànd ak yow dañu xam sa ay capacité ndax bi ñu ànd ak yow ci liggéey bi gis nañ sa xarañte gis nañ sa pas-pas gis nañ yéene bi nga am ci waa Sicap tey dafa am benn ponk rek boo xamante ne danga ko def ci sa programme muy l'éducation des jeunes et l'employabilité tey fii ndaw ñi bari nañ fi lool xam nga jóg rek def programme yomb na mais boo defee programme ba pare na nga koy defee mise en œuvre loolu day doon problème moo tax nag population maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam boroom di wax alhamdulilahi rabbil yaakaar naa baatin bi fi wàcc tey sunu xel bu dalul woon sax dina dal ndax am na loo xam ne yàlla rekk moo la ko mën a may gannaaw buñ ko sababloo ba pare te sunu boroom may nañu ko kon ñi ngi sant bu baax may wax ne kontaan naa ci suñu jotaayu tey bii bu baax a baax ndax du fii rekk lañu ñu daje fii ci Liberté 4 ñu nekk ci terrain bi suñu daje bii mboo ndar képp ci suba ak léegi li ñu doon liggéey ndax ci suba lañu ñu génn ñëw biir Liberté 4 dugg kër ak kër waxtaan ak nit ñi bi ñu demee ci kër yi ñenn ñi nee ñu ñun dafa mel ni bokkuñu ci gox bi ndax lu ñuy def rekk dañu ñu ciy faral di fàtte ñenn ñi nañu yéen seen taxawaay ak seen liggéey ñu ngi leen di ñaanal sunu boroom li ngeen di wut mu gën mu gën ci yéen te ngeen am ko ñenn ñi wàññu yaakaar bi nga xam ne am nañ ko ci liste Benno Bokk Yaakaaru Sicap Liberté ci mu mën a féete waajur yi fi ñu mënul féete seen bopp ci njaboot gi kon loolu yëpp ci suba ba léegi bu ñu nekkee di ko dox di ko wax ci biir kër yi ba tey ci ngoon ñu ñëw ñun ñëpp tase ñun ñi nga xam ne dañu bokk liggéey bi séq ko ànd ceeg dëkkandoor yi ànd ceeg mbokk yi ànd ceeg seen sympathisant yi dama naan leen gàcce ngaalaama yéen waa Liberté 4 may wax nag ne campagne bi des na ndax le 21 àjjuma 21 janvier la campagne bi di jeex waaye laata loolu di yegsi lii nga xam ne tàmbali nañ ko yàgg na mais tey surtout kër yi ñu dugg yëpp kër yi ñu duggul moo ëpp na responsable yëpp tasaat ci biir kër yi dem seeti njaboot yi waxtaan ak ñoom ndax programme bi ñu am programme la dëgg la Benno Bokk Yaakaar moo ko ŋànk Benno Bokk Yaakaar moo ko jagleel njaboot gi mais na ngeen xam ne programme bi pour yéen waa Liberté 4 li ci ne baax na ci xale yi li ci ne baax na ci tuut tànk yi li ci ne baax na ci jigéen ñi li ci ne baax na ci mag ñi baax na ci sport bi baax na ci culture bi ma bëgg nag ma fas yéene we contra ak waa Liberté ndax jàpp naa ne Liberté 4 bokk na ci xolu commune bi Sicap Liberté bu fekkee ne am nga Liberté 6 am Liberté 6 extension am Liberté bu ma yeboo ne commune bi danga koy daal di ngàbb rek dem ak moom njaboot yaa ngi ci biir kër yi xale yaa ngi ci biir kër gi may laaj waa Liberté ndax seen xel dal na ci dénk ma seeni njaboot yéen waa Liberté 4 ndax seen xel dal na ci dénk ma tuut yi xam ne njaboot yi ci biir kër yi yëpp sama ay njaboot lañ ndax bi ma tàmbalee campagne ba léegi amul fenn fu ma dul jaar te xale yi topp ñu ma ne xale yi laa fas yéene liggéeyal xale yi ñooy sama yitte xale yi mooy yitteewu Benno Bokk Yaakaar xale yi mooy yitteewu le ministre Ablaye Diouf Sarr dénk leen ñu njaboot gi danañ def ci njaboot gi loolu ñu bëgg def nag ndax fii moom wax ji du fi gudd dafa ferankulaay ba pare li may bëgg wax rekk benn misaal laay bëgg wax ci ne Liberté 4 moom dugg na marron beige ba pare xam nga sànq bi Mohamed Niang di way sëñ Saliou sama yaram dafa yëngatu ndax Sénégal soxlawuñu référence royukaay dañ ko soxlawul am nañ ko fii ba mu mat sëkk royukaay yooyu am nag dañ leen fas yéene màndargal fii ci biir commune Sicap Liberté kilifa yi fi ne bëri na notable yi fi ne bëri na li ñu def ci réew mi ak seen taxawaay bëri na te ñooñu dañ leen fas yéene màggal fas yéene leen sargal fas yéene leen jox la jeunesse comme référence ma ciy jukki kenn rek ndax bëri nañ tabaar fakal la macha allah quartier bu ñu dem rek ñi ngi defar répertoire bi ndax Sicap Liberté jàpp naa ne soxlawuñ ñuy wàlliyaan fenn cette commune de référence bi ñu bëgg def dinañ ko def te suñu doom yi dinañ xam ne ay jàmbaar ñoo jóge biir Sicap Liberté waaye lii mandargaal ne fii elle est marron la commune le quartier est marron beige waxuma responsable yi ak seen taxawaay parce que lim nañ sànq membre yi nekk ci coalition bi yépp kenn ku nekk taxawaayam lim nañ parti socialiste lim nañ AFP lim nañ APR lim nañ LDR Yeesal lim nañu réew mi lim nañu PD PVD lim nañu mboolem SICAP citoyenne mouvement yi association yi bokk ci coalition bi yëpp lim nañ leen waaye dañu am gan gu am solo gan goo xam ne papam dafa dëkk ci dëkk bi nekk notable ci dëkk bi def fi lu kenn deful muy sama rakk nag ndax ñoo bokk pap maître Madické Niang ñëpp xam nañ taxawaayam fii ci biir Liberté 4 kon bu Pape Alé Niang ñëwee ànd ak ñun ci xeex bi nekk le président de la jeunesse de Liberté 4 dama naan la ñëw nga fi nga war a ñëw te boo ñëwee xam naa ne fii dañ koy toj rajax fii moom toj nañ ko ba pare te bu seetloo xool leen équipe bi fi ne xool leen ji nga xam ne koo ci xool rek gis ne Liberté 4 la dëkk ndax dañuy faral di wax naan nit ñi dañ leen di jëlee feneen ñun soxlawuñu jëlee nit ñi feneen nit ñi ñoo gis lu leen doy nit ñi ñoo xam ci lu lu baax ci ñoom nit ñi ñoo yëg ci seen xol ndax li ñuy wax dañ koy jëlee suñu xol muy dugg seen biir xol yéen yéen a jël Benno Bokk Yaakaar def ko seen biir xol yi di xam ne ñoo leen gën a bëgg te balaa ngeen koy xam au soir du 23 janvier ngeen xam ne mbir mi ay bëggante la ay bëggante la ay bëggante la ay bëggante la vive Liberté 4 vive Benno Bokk Yaakaar rendez-vous au soir du 23 janvier Dakar sera marron beige maa ngi di gërëm di leen sant jërë